décembre la wara mu 16 titres 16 titres comme le may wax ci chiffre mathématique 1 plus 6 de l'album intitulé Secret 7 le 7 décembre un album de 16 titres plus ben bonus track intro amul intro amul outro parce que continuité le volume 1 la damay génné Secret 7 le 7 décembre top premier titre nek continuer le 16e track ñu off defuma ci defuma ci outro donc continuité lay doon pour euh, pour euh, pour pour volume 2 bi donc loolu mooy nekk suite bi li ci des mooy euh, excusez-moi ok donc li ci des mooy le set li ñuy def mooy ñi ngi fi nga xamante ni mooy timis ah. ñi bëgg jënd album bi ñi bëgg am premier ci premier loo album bi nañu fekk le 7 décembre euh, ci Ngor timis mi ngi nekk je pense côté c'est ah Almadi la nekk Ngor timis dinañ fa nekk le 7 décembre à partir de 16h donc à partir de 16h ñi nga xamante ni bëgg nañu am album bi que ça soit muy clé USB ou muy CD yépp nañu fekk Ngor timis le le 7 décembre. futur yi ci album bi aussi mooy li may wax am na yu ci xam amna aussi yi nga ci xamul je pense xam ni Samb mi ci biir xam nañ ni euh, Pape Diouf mi ci biir xam ci biir euh, je pense lañ ah, ak Pape Diouf lañu xamagum ci futur yi nekk ci album bi des aussi di nga ko découvrir ci album à part ça le 4 le 4 décembre mooy nekk point de presse bi pour média bi ak tout la communauté hip hop ñi nga xamante ni bëgg nañ xam lu bëri ci ci liggéeyu Ngaaka Blindé ci séance d'écoute bi ñoo ñëpp ñu ngi leen invité le 4 décembre le quatre décembre toujours Ngor Timis donc Timis la le 4 décembre la ñuy invité waat euh, communauté hip hop bi yëpp que ça soit muy chroniqueur parce que seen liggéey aussi ñu ngi koy gis am na solo journaliste artiste voilà euh, Blindé Blindé